basumu basuma mbare suko non ko abije saful ka sinde séeréer ñëw si naafiyo naafiyo koy sama mbokk pël yi ñëw ci iree jam jamtun tanaala mbokk Sénégal foog ma ñëw ci live bu gaaw parce que la temps yëpp su mu ne problème bi mooy ñu dem libérer Sonko ñun libération Sonko moo waroon nekk suñu objectif balaa Sonko muy demaat grève de faim léegi c'est trop tard day dugg grève de faim wax sa waxi bopp moo dàq wax bu ñu lay waxloo jëf sa jëfi bopp dàq jëf bi ñu lay jëfloo. xam sa xam-xamu bopp moo gën xam-xamu jàmbur boo ci dabaat day des man dama cohérent sama ligne du ma wàcc sama ligne ndax sama ligne commencement ba tey maa ci duma ko wàcc jëmmi doomu aadama duma ko wàcc loo Casamance su ma taxee di wax nit mënul fexe ba ma dugal ci leneen ndax doomu Casamance la duma bàkkoo mukk doomu Dakar wala doomu feneen non doomu Casamance point ndax vérité la vérité et partout suba tribunal bu Ziguinchor ñoom liñ doon wax yëpp ñoom ñoo xam lu fa xew ma yëg ko pouvoir en cassation pouvoir cour suprême yooyu yëpp ay sóob la yooyu yëpp mënul Sonko dara ndax Sonko xam na fu guerre bi toll ndax pare ngeen ñu ne ko waaw tey moom mooy ripostel boppam Sonko fan yii passé defoon naa leen ne leen délinquance étatique waa délinquance gouvernementale moo ko tëj délinquance moo tëj Ousmane Sonko kon détermination ténacité moo ko fii génnee chaque jour ma wax leen ko li tëj Ousmane Sonko ay type de délinquance la. mooy délinquant aliéné mooy lu Macky Sall def rayaate tëj ci kaso bi ay débiles mentaux des ya les pervers les alcooliques et des toxicomanes ñooy jiite réew mi di ko defee nu mu leen neexee nuñ ko sentiree ci kanamu justice ak ñëpp yéen askan wi ngeen ne teg Sonko dem grève de faim booy xeexal bu la neexee grève de faim ba dee ma xam kan mooy wax ci jixaat nga nekk ci xeex nga nekk ci jixaat nga nekk xeex nga nekk ci xeex ngir sa dëgg nga nekk moo tax tey nga riposté et qu'est-ce la riposte xale yi dee leen jël kayit bi toujours su may live ndax lu mu dee dinaa leen ci jox lu ngeen di bind toog étudier ko def ko seen kabasa yi réaction vive vive de défense contre-attaque vigoureuse une riposte foudroyante PDS loo leen mën a waxal xam nga pour lan mënuma d'accord xalaat TV ay jaxasekat lañ ay nulaar lañ ay doomaraam lañ pour muy clair bi ma fi laay fee ne leen Ousmane Sonko amul ay doom ci politique yéen ñëpp mer ñëpp a jaaxle je signe je persiste Ousmane Sonko n'a pas de fils dans la politique il n'a pas de fils spirituel il n'a pas d'accompagnant dans sa politique amul accompagnant ñun ñii di lay fak moom ak mennum Pape Alé Niang bu des Sénégal ñoo ko dese comme accompagnant point Ablaye Wade mosoo ko tëj tëjoo Landing Savané tëjoo Pape sama Mboup tëjoo Modiane Fada tëjoo Ousmane Ngom tëjoo Jean Paul Diaz tëjoo paa bi sant Faye te ñu dëkkoon fële tëjoo waa Dagana ab Ablaye Wade kenn mosu ko tëj sans ay doom politique mais ça fait trois ans bi ma ni Sonko amul ay doom ci politique bi yéen ñëpp a yuuxu doomam mi ndaw yooyu qu'est-ce qu'il fout dans la comme samay doom lu ñu mun def dans la politique bañ leen di tëj kaso ban sacrifice lu ñu mun jox ci politique rien d'autre ana ay doomu Cheikh Anta Diop yéen ñii ñëpp di rëy laa Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop da ngeen mos a gis doomu Cheikh Anta Diop c'est des métis soxlaa ñu li ngeen di def ñu par rapport ak ils n'ont pas ce parce que c'est des métis ils n'ont pas notre culture ni notre engouement dëgg moom moo sonal ana ay doomu Amath Dansokho foo leen gis pourtant seen baay révolutionnaire la woon c'est des Mais Sonko, il a pire. <coughs> xam ngeen politiciens yi lu ñu def Sonko jël ko def ko yàpp def ko ci onze sànni ko population bi am ñoo xam comprendre ñu jàppale politiciens yi si lu ñu def Ousmane Sonko. Sonko bu xeexul xeexalul boppam kan moo koy xeexal kan foog mu riposte de réponse vive et immédiate à une raillerie un injure être prompt à la riposte bële passé ñëpp ne Sonko deful grève de la faim nee naa leen foog ñu bàyyi manipulation bu di ma woo téléphone naan ma non suñ ko deful de grève de la faim dañ ko bañ jox mu lekk premier jour dañu bañoon lekk dugg mais yeneen jour yi moom moo def grève de la faim wala deful woon grève de la faim nee naa leen kenn du ma wax loolu ma xamul tey lan la ñëw wax damay reprendre sama grève de la faim kon moom moo defoon grève de la faim wala defu ko parce que fa ngeen bàyyi di jaxase carte gi Sonko nekkul ci manipulation yéen yéen nekk ci manipulation ak bëgg di dégg lu leen neex te man taluma lu neex ndeyu kenn fi dëgg nekk laay toog je m'en ci kii kontaan ak ku kontaanul ndax li ma gëm laay wax kenn du ma wax loolu ma xamul personne sur terre Ousmane de la fin bi bi la sëriñ di jox tàndal ma nee naa la sëriñ mënu ko rek la ndax tey ma jox leen beneen secret ci loo xam ne Macky Sall da koy def ak nguuram seul Macky Sall et son régime sont des maniaques du contrôle Macky Sall et son régime sont du contrôle maanaam il aime tout contrôler il contrôle tout actuellement le pays et tout et tout même waa Pastef si boppam c'est Macky Sall qui les contrôle man nag li ma leen waxoon naa leen ni waxaat yéen yaa ngi ni ma ne combat mais combat yi daa bëri facette de fiche de parrainage am dinañ ko ko jox ubbiwaat procès yi procès yëppay ubbeeku xam nga am na lu Sonko bind ci dossier xaw ma lan contumace am na lu mu bind mais procès boobu dina ubbeeku waat si Mame Mbaye Niang normalement ñu ngi ko waroon ubbi février 2024 mais dossier Mame Mbaye Niang ubbeeku ne waat te dossier boobu xam naa ne Mame Mbaye Niang d'accord ci Mame Mbaye gain xam nga man du ma hypocrite comme gars yi dama doon waxtaan ak mu ne ma noo munu leen nekk ngeen nekk ay copain ci biir ba pare boo leen génnee def live ma wax leen dara tam Sénégal Sonko kese du fi politicien balaa Sonko ñëw am na ñu doon ànd du politique moo ñuy tàkkale négatif man nekkuma si lu ñëpp wax non nañ déglu Sonko lu mu wax moo am lu mu négatif ñun ñëpp ay doomu aadama lañ nekkuma si loolu je ne suis pas dans ce genre de bêtise là man nekkuma ci bêtise yooyu. ñenn yi da nga naan noo yéen yéen ak ñoom Pape Alé guddi gi yéenay bokk fi ngeen toog ba pare boo leen xëyee bëgg a live contre gars yi. parce que li ñu sekk ñun ñoo ko sekk du politique moo ñu boole du ay affaire seen i ñàkk fayda Sénégal yi Macky Sall andi leen du looloo ñuy boole ñun suñu biir négatif. négatif du looloo ñuy boole ay Sénégal lañ ginnaaw Macky Sall dañuy des Sénégal ak Ousmane Sonko après Ousmane Sonko dañuy des Sénégal kenn mun ñoo tere wax dëgg ak ku ñuy àndal. pourtant si ñun ñi di live am na ñu ci am ay xaritu politicien mais ça ne ndax ay boy Dóor ok fii la ñuy nekk dileeru Sénégal yëpp fii la ñuy nekk miin nañ ñëpp mais loolu du bitu combat bi ñun suñu bit mooy yaa ngi ni parrainage Sonko reprendre grève de la waa Pastef ne leen xeex bi jeex na or xeex bee ngi doog a commencé léegi nag yéen Pastef yéen laay laaj noo leen di def ba débloquer combat bi comment vous allez faire bu Sonko demee grève de la ñu andi procès Mame Mbaye Niang confirmé six mois am du bokk élection léegi yéen Pastef noonu la ñuy def ba déclenché affaire bi parce que de source sûre laa leen di wax de ñu ñu di xeex nii ah combat bi li ko bloqué bëri na xam nga lu bloqué combat bi civil yi si bokk bëri bu xeex jotee am na ñoo xam dañuy toog naan def leen def leen te yàlla xam na ne amuñu group bu vingt personnes amuñu ko ñeneen ñi xale yi ñu doon xeexloo yëpp ñu ngi ci kaso bi xeex bi nee leen am na fu muy toll ku ci ñemewul jël fetal bokkatoo ci xeex bi xeex bi ba maay ku ci ñemewul jël góor dóoran teg nday gaa yi bal bokkatoo ci combat bi tentative de coup d'état yeeg yi xool yooyu depuis vendredi depuis samedi yëg naa ko mais je m'en de saa xam nga lu tax je m'en Casamance a ngi tàkk bu ñu ngi dem ci biir Signa village bu ñu njëkk kii dóor fa ay rafal noonu ah, ci biir civil yi dem jàpp ay nit seen ay tool ne leen da ngeen di bay yàmba ndax lan bi ñu àttee Sonko ba pare man waxoon naa leen ko keroog de moo colonel ne woon naa la keroog benn bal bu tàkkoon biir Ziguinchor bii heure waxatuñ Ziguinchor bii heure Ziguinchor un et un et un sang te prouvé naa leen ko samedi bi ñuy ñibbi bi ma dajeek yéen si ñaan sa boy yi ñam nañ wala ñamuñu vous avez cinq morts non avec des blessés graves kooku sama retour la boo buggee suba ñu dugg siwaat mais comme suba nga xaw ma lan de l'état l'avocat de l'état génnaat na ci li mu waxoon yëpp donc on avance kenn du wax lépp xam ngeen ma xam xam ngeen fu àll bi toll nit ñëpp ku nekk xam nga sa code fu mu toll Sonko nag. ñun buñ ñu déggaloon ñun waa Ziguinchor wala 5 pour cent population bi topp ñu ñu libéré Sonko def ko candidat def ko président bu ñu paree ku nekk continuer sa combat. Sonkorité bi bind fépp Sonko c'est bien beau de Sonko namm naa la c'est bien beau de waaw bu Sonko di xiif kan moo koy xiif la aywa Sonko xiif ne nañ ko aywa léegi na dëkk bépp woorati. dem na grève de la faim de demoon na fi grève de la faim kenn wooralu ko man deux jours laa fi grève de la faim damaa xaddi grève ma de la faim dama ko deful waaw deux jours laa toog xiif xaddi soo ko def trente jours et plus loolu moom la man du man parce que dama leen ne kaa leen wàcc ci terrain bi ñu ñafe ko Sonko xeex moo koy libéré du ay tànqaani kanji kanji ay libéré les prisonniers politiques du ay wax moo koy def du ay dossier moo koy def ay jigéen si sa aji ndaw mu ngi grève de faim ñun ñëpp ñu ngi koy seetaan newoon naa leen bu Sonko yàggee ci kaso bi lakki ñu Pastef yëpp feeñ lakki ñu waa Pastef yëpp feeñ su mu ne mbóoj feeñ mbóoj gis nga boo ne tuuru mbóoj feeñ mais ñaata ñi tudd mbóoj ñaata gendarme ñuy tudd mbóoj ñaata pénitencier ñuy tudd ndaw ñaata pénitencier ñuy tudd Habib yéen détenu yi xam naa ne yaa ngeen may seetaan am na booy bi ma si ne non grand taay booy bi nga daan yónni ñëwatul booy bi ma daan yónni waa Pastef ñooñu ne ñoom ñooy voix autorisée yi te xamuñu ne man fan laa doon jaarale pour yónni booy yi ak booy bi ñan ñoo ko daan yónnee xaalis xamuñu ko. bi ñu tëjee Ousmane Sonko Ousmane Sonko li mu mënoon chaque semaine xaalis bi doon dugg ci prison yi rek xaalis bi doon dugg fépp Ousmane Sonko la woon. fourniture de classe yi bu ma kenn woowati jooy xaalis boobu Ousmane sunkoo ko doon def xam nga dañ koy wax te dee du waa Pastef Pastef li ñuy cotiser nii pour seeni voyage la ak seeni solo du pour de pour yéen le peuple de pour yéen ñu tëj ci kaso bi de pour yéen ñuy dagg seen tànk de pour yéen ñuy sacrifier seen bopp négatif xaalis boobu de pour yéen Ousmane Sonko xaalis bi mu doon recevoir pour yéen la woon. Sonko idem ak idéologie moom ñi mu jiital bokkul. fi politique toll ak fi ko waa Pastef bëgg a connaissé bokkul. ñëpp mënuñu noppi gëmm tëxlu topp leen ci seeni bêtises ak seeni sottise négatif man de duma ko def ndax passé France li ma leen waxoon laa leen di waxaat kenn kese laa fiy déglu te ni ma leen ko waxoon laa leen koy waxaat sama booy bi la Alioune Sall il toujours sur le terrain te yow Alioune Sall dégg nga message bi la Sonko jox nee na la combat bi yow Alioune foog nga gën a remobiliser troupe yi foog ñëpp dajaloo gis nga man bi mu leen woo bloc ba tey bu ñu defoon bloc bi coow li jeex na Pastef Belgique fexe ngeen ba mu am deux Pastef origine ak lii léegi est-ce que mënuñu fexe ba ñaari Pastef yëpp daje Pastef Suisse. déjà yow Habib plus de 500 et poussière maam yow Habib je te parle directement ndax xam naa la bu baax xel nga ma xamul. comment Suisse le de 500 membre nga ne Suisse du am cellule yow kese yaa jiite Pastef Ousmane Sonko ñi lay jàppale ñu ngi lay yàqal. comment Suisse nu Suisse toll ci ay sénégalais mu am Pastef ñu ne Pastef amul cellule benn bureau la am bureau bu du renouveler. gars yi ñun faluñu ay Denis Sassou-Nguesso on a plus besoin de ces genres de politique là ay ñoom Denis Sassou-Nguesso déedéet si man yéen ñi nekkoon Pastef ren bu jaxasoo na am ni xoola génn leen ci bureau bi bàyyi booy jiite ndax ñu leen ëpp engouement cellule yi moomu leen ko partisan Ousmane Sonko yi ñoo ko moom moo tax yenn waa Suisse yéen waa zone est Europe bi dama leen di wax de jël leen seen responsabilité boo si jaay nekk ci kaw yëpp nekk représentant Pastef nekk ci kaw di jéem a xaan-xaan yi deux poids deux mesures xool baleen ko fa def comme waa Belgique jël leen seen responsabilité en mais sin mois moo ci des organiser wu def seen def seen ay cellules biir Suisse def seen bloc pour ñun bu ñuy rassemblé wu fii ñun ñëpp mën ñëw daje ndax combat bi fi ñu jëm ni ñun diaspora ñun Belgique ak France foog naa ne li Ousmane Sonko soxla ni li ñuy manifester sur place c'est bien beau mais foog diaspora bi ay marché commencé pour ñu déranger institution internationale yi parce que institution internationale yëpp a noppi waxuñu ci kaw Ousmane Sonko France mu ngi ne teg Nations Unies mu ngi ne teg ñoom FMI ñoom ñëpp ñu ngi ne tekk léegi bu xeex amee ñu ne voilà tant que xeex amul gars yi ñu réagir tant que coup amul gars yi du tax yéen Pastef li ma leen di wax il est temps ñu génnee tuuru Pastef def ci Pastefu il est temps ñu ñëpp ñëw dajaloo gars yi bloc bi depuis cinq mois maa leen di wax ne bu ñu deful bloc bi on va jamais s'en sortir l'union fait la force Guy Marius Sagna Sonko il va reprendre la grève parce que xam nga lan il n'a pas de soutien il n'a pas de soutien est-ce xam ngeen ne Sonko semaine passée bi ñu ko jugé ba tey dañu bloqué visitam yëpp xam nga ne dañu bloqué visitam am jabaram yàlla nañu génnaat wax kenn du wax lépp ndax man sama yoon nekku ci yenn détails yi comme dafa am ñoo xam ñooy yéeg lépp ñoom laay bàyyi ñu wax ba pare bu ñu waxee da ngay xam lii yëguñu ko. man nekkuma si maa yëg lépp maa xam lépp je ne suis pas de ce genre d'homme ndax fenn laay mënee combat bi yeneen yu ma yëg yu bëri soxlaa ma ko wax parce que c'est des détails si man je ne rentre jamais dans les détails loolu rek sama cat toog xaar ba sonn ma topp leen ni nañu libéré Sonko mooy objectif bi bàyyi leen ma waxu parrainage ñaata yoon laa fi saaga nit ñi si affaire bu parrainage ne leen kenn du ko fi parrainé ndeyam te Sonko génn léegi Sonko delluwaat na grève la camp pénal jigéen yaa ngi grève de la faim depuis ñaata fan kan moo leen soutenir kenn Sonko ñu ne génne nañ ko ci liste électorale juge delloo ko fa état bañ est-ce que yéen wàcc ngeen ci mbedd bi xeex moom day xeexal boppam Sonko na ay fiche parrainage am yéen ñëpp na ay fiche parrainage Ousmane Sonko xam nga juge bu jugee ba pare day bind ordonnance def lu muy def yëpp ku leen di juge Ziguinchor bi defu ko da ngay fen le juge là déjà fait greffier yeeg ñooñu xam nañ lu may wax mais lu tax documents yi remonté gul lu tax documents yi c'est en retard looloo tax Ousmane Sonko dem grève de la faim ndax xam ne gars yi ren di ren di picc lañ koy pare ren di mooy buddi bopp bëgg xeex bañ xeex bëgg bëre bañ bëre bii paa dama leen wax de ku ma woo yenn mag yéen ndaw yéen góor yéen jigéen ku ma woo si téléphone ne man na Sonko bàyyi grève bi naa saaga sa ndey ak koo doon ku ma woo ne man su na Sonko bàyyi grève naa saaga sa ndey ak koo doon je vous de naa saaga sa ndey yéen femmes yi di ma woo yëpp yéen maires yi je vous avertis de dañuy clair dès maintenant balaa ngeen naan dama ñàkk kersa dégg naa ne loolu ngeen di vilipender fépp bàyyi dafa ñàkk kersa dafa ñàkk kersa ñàkkuma kerse yaa des détails duma ko tontu ci téléphone lu ñu war a xeex kenn duma ko laaj téléphone li ñëpp wax kenn duma ko laaj ci téléphone parce que awma temps wu tontu ndey kenn man danga may woo ne ma da bëgg jàppale diw man la jëlal numéro nga jël numéro man la yónnee ko nekk sama commande ndax taluma jëli xaalisu kenn soxlaawuma seen xaalisu kenn ñun Casamance naka la ñuy def ba xeex rebelle yi nu ñu def ba rey cinq militaire nu ñu def ba dëgg ndayu militaires yi seen biir parce que ngeen ko xam ni ñu def ba maire yi jóge Thionckesine ñëw ñëw Ziguinchor manifester 24 heures xam ngeen ko ni ñu def ba maire yi jóge Oukout ñëw xam ngeen ko xam ngeen sax fuy Oukout nu ñu def bay génne waa Bois Sacré xamu leen ko doyen Badji France merci ñu Casamance dañu xam paa yoo xam boo leen ne allo père passe bi 400000 la ñuy génnee waa tel Bois Sacré xoola ñoom ñooy téléphoné ci bois sacré ba direct yónnee femmes yi quatre cent mille ñu génn paas ñëw loolu Casamance kese la am mais dañuy sol t-shirt Ousmane Sonko kenn du la faale Casamance dañuy takk bracelet on n'a pas ton temps parce que ñu ci ay mouvement buzz moo xew nous nous ne sommes pas dans ça nous sommes dans un combat très sérieux te bi mu leen koy wax depuis départ comprendre leen woon fii la Sonko dem këram jigéen ñi di fecc ñëpp di kaas. waa Casamance seen fecc bi waa Casamance seen fecc bi ba pare ngeen bëgg ne ma xam ngeen Casamance ñenn ñi ne mënoo ñëpp ñëpp a duggalal da ngeen ni duul jong ak duggalal du benn da ngeen ni fen ndayam duggalal c'est chaque trente jong ak def initiation dajale tout un village ñu def fête bi dem leen Casamance laajte ça se passe chaque trente ans moo tax parents yi ku nekk di dajale sa njëgu nag pour sa doom bu góor allez demander aux villageois lan moo tax ñoom le jóge ba Allemagne bàyyam andi ko mu duggalal mais le roi Sané jong na kañ jong ak duggalal bokkul histoire boo ci wax danga koy maîtriser doo ko ci wax. man nee naa leen nekkuma ci ay yëfu événementiel rëy laa lu ñëpp wax nga wax ko je m'en bats les si lu nit ñi wax xam man lan moom ma ñor la Casamance combat bi ni ñuy def ba suñu doom bi falu bu faloo ba pare ñu dellu si waat suñu la Casamance li jënti suñu la Casamance kooku je ne la badine avec personne. la Casamance avant tout la Casamance après tout ndax bu ñu nalawee ñu sank sacrifier suñu doom pour sauver Ousmane Sonko nag mu ñu basoo ci marabu yi de parce que les marabouts sont hédonistiques hédonistiques religieux qui veulent toujours xam ngeen luy hédonistique y a de l'hédoniste religieux au Sénégal moo ñoo xam nguur gi fi toog rek dañuy attax yow te kooku ce ne sont pas les te yéen sax luy ndayu sax marabu yi sax war a ne sax Macky Sall bàyyil Sonko yéen yéen loolu loolu ñun Sénégal xam nga man lan laa comprendre combat bi dem ci gis beaucoup de diw mu ngi def lii diw mu ngi katt kii diw fii la si mbeekoo taatam diw fii la si mbeekoo taatam mais et après et après waxu vie privée jàmbur yu nekk merci yi ñu nekk affaire yi ñu nekk ça nous quoi en deux mille vingt quatre lan la ñuy apporter en deux mille vingt quatre moment bi problème bi Macky Sall la Ousmane Sonko problème bi Macky Sall la avec la justice des hommes responsables avec une justice integre problème bi. Macky Sall la ak commandement institution Macky Sall la avec les institutions étatiques Macky Sall la ak délinquance gouvernementale bi mu tegal gars yi nii mooy maa leen gën doon bandi nekkatuñ ci état de droit nañ leen dem ci état wu dégg sa dégg problème bi fa la nekk. daaw bi ñu tolloo ci dossier bi di ñëw nii nekk guñu élection là on pouvait gérer les vies privées taatu jàmbur xonk na taatu jàmbur lëndëm na mais déedéet. moment bi ñu ngi nekk ci vie privée ba sunkoo delluwaat grève de la te joxaguñ ko liste de parrainage am est-ce que dem parrainé la wala libéré Sonko fii ba le 5 décembre est-ce que ñun war nañu libéré Sonko avant le 5 décembre. koo wax ma la non sëriñ ñi réglé nañ ko sëriñ ñi réglé nañ ko Macky Sall dama lay ñaan dara de man man de Macky man tey laa lay ñaan dara bu fekkee sëriñ yee tax nga nar bàyyi Ousmane Sonko bul ko bàyyi tëjal ntayam ba 2025. bu fekkee Serigne si rek a tax la bàyyi Ousmane sunkoo tëj ko kaso ne sunkoo dee ci kaso bi bu fekkee Ousmane Sonko benn xalif général nar na ko génne yàlla na dee ci kaso bi man sama wax dama koy teg fu wóor bu ko Serigne naree génnee ci kaso bi Sonko génne di fi raamal Serigne nag maa ngi sant Serigne diw nañ ko nokk ci kaso bi bàyyi ko fa. Sonko volonté populaire moo koy génne ndey ci kaso bi Sonko demul ci benn sëriñ ne leen ndax pare nga wala pare leen soyons logique entre nous combat bi teg leen sëriñ si à côté yéen ngeen jóg xeex ndey combat bi. man fa laa teg combat bi fu mu toll nii bu ma kenn waxati ay xalif généraux eh, bu benn xalif wax yéen xalif yi génn leen ci combat bi seen yoon nekkutu ci bu ci seen gat nekk parce que on vous a rien demandé. Baye Fall yaa ngi xeex Touba kii bi ma fay Baye Fall yee eh, vous êtes à Touba non rey leen ndeyu ñëpp te dëkk baa ngi seetaan rey leen ndeyu ñëpp. qu'est-ce qui se passe dara day xewtu jëkk bi ñëpp di yuuxu di jooy loo ni di jooy te affaire baa ngi nii ne seen kanam waa ci leen xeex ko génn génnee ko fi yéen ko fi génne yéen xeex mu den mais Sénégalais toujours lu ko dal rek day wut fu ñuy jàppandu pour mu dimbali ko waaye kaa leen dimbali ma loolu lay ñëru. benn sëriñ dafi génne Sonko ñun ñoo fi génne Ousmane Sonko benn sëriñ demul ci bureau de vote jël carte électeur am voté amul ñun ñooy voté jël Ousmane Sonko ñun ñoo koy fal du sëriñ bi du jabaram. vous nous emmerdez à la fin de compte je ne comprends plus ce qui se passe ci combat bi ñii ngi saaga ñii ñii ngi saaga ñii te au fond kan la Ousmane Sonko war nekk candidat Ousmane Sonko la ñu représenté mu voté. duma acharné wu ci kenn ku dul si ñun la population duma acharné wu ci kenn ku dul si ñun les partisans de Ousmane Sonko bu usman Sonko grève de la fin yooyu ñun la du tàndarma bu ko benn sëriñ jox benn sëriñ fenn fi Ousmane Sonko ñun ñëw fenn Ousmane Sonko ndax bi muy dugg kaso newoon nañu lu ma bu ma defee six heures de temps ci kaso bi jël si leen ma ba tey kan moo am fitu jëli ko lu dul daw di génn dëkk bi jël ay gaal kii depuis ouverture des classes ouverture leen loo leen def jël xaalis bi di ko parrainer ana seen parrainage yi ngeen cotiser seen xaalis ana dàmbuj xale yaa ngi toog amuñu ay kaye jàngi xale yaa ngi toog sonn carrément amuñu lu ñuy def mais Sonko psychologiquement booy bi il est chaotique waxuma le choc bu Barthélémy Dias boobu on laisse passer mais le choc du peuple sénégalais keroog li waa Casamance def sax moo xaw a sax remonté waat Ousmane Sonko mu dellu ci à la raison ba tax tey mu sañ grève de la faim sinon Sonko découragé na woon ba xoola noppi foo ko fekk ci alxuraanam lay nekk ak ci ay sewam concentré wu la doon def nangootul woon wax lu wax lu bëri dam leen laajte ñu koy seet hôpital ku leen ni Sonko wax nax moom day fen ku leen ni wax nax moom day fen nangootul wax ak kenn keroog nag vendredi bi waa Casamance wane seen jikko wane dëgg bi ci la ne wala waa Zik duñ ko gën a gore il a pris ses responsabilités tey ñoom aji ndaw tey bu ñuy grève moom moo tax tey bu ñu deful tey tuuram ci liste électorale ñun peuple bi ñoo tax parce que li Macky Sall def tegu ko fenn te ñun ñëpp ñu ngi seetaan. revenons à la raison xam fan la combat bi nekk ñan ñoo war a mën a combat bi ak kan moo war a gagné combat bi yan la ñun la mais ku nekk di xaan xaan di wut buntu de sortie j'ai pas besoin de porte de sortie pour défendre Ousmane Sonko ku ñamewul gàddu ndayu arme génnal ci xeex bi. ay Macky Sall coup d'état Macky bu coup d'état wee ñu coup d'état ko ci dëjjaw ndayam pour muy clair fii coup d'état bi ça sera fait par la gendarmerie coup d'état bi ça sera monté par Jérôme Bandiaka ki yéen la police nationale yéen la gendarmerie nationale boo leen def defloo si yéen la ñuy jàpp ay nit rey leen nokk leen ci kaso bi aywa yéen ngeen foog ne coup d'état bi ñuy waajal armée yëgu ko maa ngi ciy waxtaan ak ay kilifa armée yu bari kilifa yi bëri moo tax depuis keroog ñu ma koy jéem a wax loo xoola faale ma leen du ma ci wax bés bu Moussa Fall essayé li muy préparé ni tentative coup d'état pour jiñ ñu nii ay affaire ma ñàkk sama ndey du waxu live seen tentative de coup d'état boobu di ngeen ko yemale seen silibu ndey yi ak seen caleçon papa yi mais du Sénégal lañ koy defee Sénégal bés bu ñu jógee pour coup d'état ñun ñooy jël ndeyu réew mi te bés bu ñu jëlee réew mi xam nga li ngeen di bañ ñu wax la ñuy wax gis nga tuubaal li fa xew ni personnellement man maa ci occupé wu ak sëñ Moustapha Saliou li xew Touba ni man personnellement maa ci occupé wu fi ñu jëm nii yàlla na sotti ba ñu yegg fa ak Macky Sall fi ñu mag yi jëmee nii yàlla bu Macky Sall teggi tànkam yàlla nañ fa yegg ku xamul xamoo ku yëgul yëgul bés buñ fa yeggee ñun ñooy changé réew mi am ñu ma laajte Guy Marius Sagna père merci beaucoup Guy bu ñu béegum de dese na la xam nga bu baax lu ñuy waxante sa programme des na yëg naa ni ngay codé yëpp Guy sera candidat ndax FRAPP la bokk Ousmane Sonko sera candidat ndax ci coalition Sonko 2024 la bokk mais Guy Marius Sagna Ousmane Sonko booloo nekk candidat ñoo bañ ñun doomu Casamance duñ ko def bii paa kenn duñu sacrifier kenn duñu nax këll këll ñu boole ñu yóbbu ñu conseil constitutionnel rend ñu ñu ñaar ñëpp kenn du ko def ñaari doomu Casamance yëpp président présidentiable te kii dee jël p kii jël deux Guy wëral lu ngay wër négocier lu ngay négocier fin novembre nga war ñibbi noonu fin novembre nga ñibbi ak jàmm dépassé nag duma wax fi muy jógeek yëpp xam na mais ay wax man nekkuma ci li ma leen di ñaan mooy Ousmane Sonko riposte na te riposte bi c'est ob c'est objet riposte bi c'est reprendre du tigo tak c'est rétorquer c'est riposter face à cette délinquance étatique booy nañ leen dem sauver Ousmane Sonko loolu laa leen mun a wax leneen lu ma leen ci wax waxuma leen dëgg ay nañ dem parrainage je m'en fous ndax Ousmane Sonko soxlawul ko ko parrainé mu ngi ak ay député ba pare il sera parrainé d'office Guy Marius Sagna sera parrainé d'office kon yooyu yëpp ay waxu ndax xasanxandam la sama yoon nekku si assemblée boo xam ne nag bu élection passée 2024 day tas Guy promène-toi marche man soxla woo dellu assemblée bi assemblée bi day tas 2024 kon c'est pas la peine de perdre son temps li ngay dox dox ko bu ñu paree def la président assemblée nationale Ousmane Sonko nekk président ndax si yeewu nag sëriñ si commencé nañ ni su suuf ni koo gën gii ndax gii chrétien la ndax gii amul këru diine bu mu rafee réew bàyyi leen gii dox doxam gii marche droit de devant doomu Casamance nga yow li nga daj ci terrain bi commissaire yi nga war a changer yow déjà tu étais député avant d'être un député avant d'être un député nominé tu étais député par la nature kon tey quitter sa députation nekk président assemblée nationale gii wala nekk premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko président loolooy dëgg mais bu Sonko présenté wul nag gii boo nelawee ba Sonko présenté wul bokkul boo nee nelawee yéen politiciens yëpp ku ci nelaw bu Ousmane Sonko bokkul yéen kenn du ko fi campagne grève de la faim bi mu entamé normalement la cinq 6 décembre la jëm li mu soxla bu amul dina dem ba ay le 5 6 décembre bu ci deewee ku ko jooy ma dëgg sa ndey ku ko jooy ma gërënaat ndeyam dëju Sonko bés bu bëree nit ma naat ndey dëj bi miine seen ndey ku fa ñëw tëb ci miin dee ñu xam ne sunkoo ko jar ku wàccul xeex. ba béy woy muus nga bëgg a wax ñu saaga sa ndey ku ci jàppul financièrement ba béy woy muus ñu saagaat sa ndey man li ma leen di wax laa leen wax je n'emploie jamais des civils sur le terrain booy ñu ngi ma topp grand dañuy exfiltrer Sonko dañuy exfiltrer Sonko exfiltration bi jaru ko parce que ñoom ñu ngi hôpital principal foofu ñoo leen ëpp foofu lu ñu fa mënti def Sonko la ñuy gaañ ndax Sonko ci boppam une semaine avant xëcc na pour dellu jam ñaajo état bañ Sonko xëcc na pour dellu prison état moo bañ moo tax mu dellu si grève de faim grève de faim bi du bees grève de faim bi du lu bees moo tax temps yëpp ma topp leen si nañ libéré Sonko nañ libéré Sonko nañ libéré Sonko nañ libéré Sonko léegi nag mu ngoog moom commencé na libération boppam c'est encore trop tard foog ñu nekkaat fi di kacaw kacaw ñun nag Ziguinchor dañuy jël suñu responsabilité. Casamance kese laa mun jël sama responsable Dakar xamalatum leen dara ndax Dakar liñ ko cotisé moitié bi suñ ko cotisé woon Ziguinchor bii heure gagné nañ combat bi li ñu cotisé Dakar buñ ko defoon Ziguinchor bii heure waxatuñ ko li ma leen ñaan nag mooy ñu doon gere Damboj ouverture am ñoo xam ak Damboj ñun pour libération Ousmane Sonko comme mu ngi grève la faim. prisonniers yi ñu ngi grève de la faim parce que booy itam di ñu xiif bi ñu tëjee Sonko nii nii nii booy il galère complètement dans la prison ndax li Sonko mënoon ci xaalis ñun mënuñu ko man j'ai passé moyen beneen laayfeur it amul moyen laayfeur yi ngeen di gis ay ñoom jigéen ñëpp gaa yi ñu jox moyen yi leen di jox kenn amul moyen grenade a baax tegatul conteneur kaay su waxi noppi ñëpp réuné wu fi mu toll yi ndax la nekk ci xeex bi waa Pastef bëgg ñu si génnee te ñun ci xeex lañ nekk léegi yéen waa Pastef leen yéen laa lay ñaan boo leen mënee rapproché ñii xeex xeexkat yi boo mu mënee rapproché xeexkat yi yéen waa Pastef ngeen jël seen loxo tuuti teg ko ci xeex bi pousse oto bi pour mu tàkk ngir yàlla financièrement Pastef foog ngeen jàpp ci xeex bi Pastef xanaa dàmbooj lu muy tas nii yëpp élèves yi nekk ouverture Pastef au moins man foogoon naa ne bii heure benn député dina jënd loowu 2000 kaye dem ci dàmbooj gis nga boo leen gisee saa may wax man du ma wax ak diaspora bi ñu bëri laajal diaspora ñaata nit ñoo ma woo pour inscription yi ndax tontu naa leen tontu ma leen parce que waa Pastef laay waxal direct député yi laa naan yéenay dem sur le terrain inscrit xale yi yéen député yéen a war jënd ay kaye ak ay bic yóbbul ko dàmbooj a war mais yéen député loo que vous êtes trop des débutants nekku leen assemblée pour jël xaalis da ngeen waroon yéen tey liggéeyu tey Sonko yéen député yi tey yéen a ko waroon mottali tey biir Sénégal bii heure manquement Sonko waru woon feeñ Sonko dafa manqué ba mu feeñ ci prison yi c'est pas sérieux passif Sonko bi mu leen di fal du woon pour lii gars yi foog ñu gore yeggali combat bi nekk ci combat bi loolu laa leen mën a wax Sonko ngi grève de la faim ku mën jàpp si combat bi jàpp si ku si mënul jàpp yaa xam ñun Ziguinchor ñu ngi xeex boo leen xeexee ñu ngi xeex boo leen xeexul ñu ngi xeex reste bi nag yéen waa dakaar noo leen ko defee baax na foo leen ko teg foofu la mama yi town du ma a kenn xeexal li ndax man moom sama problème mooy nañu delloo Sonko jam ñaajo boobu buñ ko delloo man ma assuré leen ne jam ñaajo ma taal ndey prison bi mais hôpital principal ku la ne mën na fa defi dara waxula dëgg xanaa dem sàcc ay bidon essence comme ni ma koy defee dem dóor seen bidon groupe yëpp pour bu courant coupé te da ngay dóor bidon yi booy il n'arrive pas à accéder ci poste bi pour couper courant bi loolu yëpp foog mu am jàppale. li ma prévoir si xeex bi man maa ngi xeex ak samay groupe ak samay éléments j'ai mes propres éléments ragalum ko new ma ñëpp samay éléments lañ ndax je m'en fous des éléments des autres duma employé civil encore une fois <laughs> bokkuma ak civil yi ku ñemewul tiire fetal mi ndax Macky Sall si fetal lañ jëmee biir Dakar piégé leen ñoom ñëpp ci ay tatatatat ngeen puubati de Moussa Fall boo ko tatatatee tatatat ko sa ndey xam nga bu baax lu ma lay wax. jàpp ngeen sama ñaari booy noo démb bàyyi nañ leen noo kot deux cent cinquante man du ma wax lu bëri moo tax saa ñu bëri dañ may bëgg a woo même live lañ nii non mënu ma nekk ak kenn parce que gars yi je ay civil lañ. dañuy demee sentiment de trop waxuma dara ci sentiment wala diw dee na diw deewul loolu je m'en fous ça ne me man si combat bi jël naa lu may jël ba pare moo tax ku ci dee yaa xam ku ñu violé yaa xam ku ñu dagg sa tànk yaa xam ñun Sonko nekk candidat mooy suñu projet Sonko nekk président mooy suñu contrat bu contrat boobu jeexee lu golo na xam na bootee doomam Ousmane Sonko ou rien boo leen ko xañee Ousmane Sonko ñun ñu xañ day Sénégal yëpp jàmm Sénégal yëpp laa la wax la ñuy xañ jàmm tout le monde Louga Saint-Louis Dagana Fouta Richard Toll Fatick Kaolack jëmmi Serigne Bamba bu Ousmane Sonko amulee jàmm kenn du am jàmm personne n'aura la paix dans ce pays je vous avertis nag personne n'aura la paix mu ngi grève de la faim non vendredi vendredi vendredi ma commencé dëggaat ndey dëkk bi toj nday poto courant yi saboté autorité yi bënd nday pëno oto te kenn du si mun dara ñu dugg ci mun bu soobee suñu borom yéen code Paris yéen ñi nekk town on se prépare alhamdulilahi rabbil alamin booy France yëpp a ngi town alhamdulilahi rabbil alamin booy ñëwoon màggal Tuubaa yëpp a ngi town code ñu jël réunion su suuf Sonko day arrêté grève de la faim ngeen libéré ko par force defar ko ci liste yi voilà kenn du wax lépp xam ngeen ñu xam ay waleen de la faim ñamali rek dëgg seen day rek basuma basuma mbare Sonko ou on tue le Sénégal waxuma la tuer les Sénégalais de on tue le Sénégal sans Sonko on va éliminer le Sénégal de la liste orange na seen xel dal buleen leen waxatu Sonatel orange ngeen wax orange si boppam la ñuy dëgg ndeen tout ce édifice français comme ñoom ñëpp noppi édifice français yëpp la ñuy taal drapeau russe nag daaw laa ko wax am ñu ma ne da ngay yàq combat bi tey ñëpp ngi naan drapeau russe bëgg ma wax ci ñun Casamance ñu ngi wax suñu drapeau russe yi on en avance sur le combat les jeunes suñ ko ñu grève de la faim bu mu ñu gën a gore ay waleen na biir na biir na biir na biir dëgg nday Macky mooy solution lépp toj suñ ko kese des lii laa la jargoñ c'est très naturel tey laa ko ci def jargoñ gi dee ba wow ça veut tout kot laaj ngeen ko borom xam-xam ni lépp toj Sonko kese des ça veut tout dire basumo basumo su ko non ko abije yi baa faamaale bii duma leen wax li ci nekk yëpp mais Macky Sall xam na